top li nga xamantene ni modi eh, émission bi depuis tout à l'heure donc da nga bëggone intervenir par rapport ak li ñuy waxtane waaw waaw waaw bien sûr waaw ñu teunk ko rek ndax waxtu wi xaw nañu xoj wa d'accord kon donc ma aborder ben point rek parce que fam point yu bari mo abon bëggone aborder mais ma aborder ben rek ah, d'accord d'accord ñëwal moy manam euh, xam nga dëkk ak euh, association de ay nit pacte sociale moo ko yor. Mm-hmm. yéen ñi jàng xam ngeen pacte social contrat social bu Jean-Jacques Rousseau. bi ñuy defee pacte social bi dañu ne léegi il faut que ñu booloo comme ça justice individuelle bañ a am comme ça ñu booloo ñu am benn pacte social pacte social bi lu ko lal mooy des règles et lois établies. ñu ne buñ ko établi ba pare dañuy d'accord ci règles et lois yi ñu ne ok bu ñu nee bu ci biir nag bu ñu ci amee réero il faut que am benn kuréel boo xam ne moom mooy acte réero boobu. Mm-hmm. mais buñ ko àttee ba pare nag après s'il y a pas de suite donc mu ngi mel parce que nekk def n'importe quoi. Mm-hmm. ñu ne léegi nag il faut ñu am beneen kuréel encore boo xam ne moom mooy exécuter loolu nga xam ne ñu mm-hmm. euh, temps yëpp maa ngi dégg ñuy wax euh, affaire Karim Wade affaire conseil constitutionnel dafa am xam nga mbir bu amee sama genre bi buñ ciy wax rek ñëpp di ci wax rek ënd bi mooy que Sénégal tout le temps tout le temps tout le temps dañu am benn problème problème delluwaay am na foo xam ne bu ñu fa tolloo rek il faut ñu dellu ci suñu delluwaay mais bu dee ku nekk day wax rek solo li mu xalaat rek il y aura beaucoup beaucoup beaucoup de poussière donc nit ñi dañuy gën a réer moo tax tout le temps il faut ñu dellu ci delluwaay. dama mhm. déggoon keroog xam nga le cas de ma commencé d' abord le cas de Karim Wade. Mhm. xam nga on fait un faux débat est ce que juge yi dañ leen a corrompre ou pas corrompre on fait un faux débat. maanaam léegi juridiquement est-ce que la candidature de Karim Wade mënoon nañu ko retenir wala mënuñu ko war retenir purement juridique rek fekk waxuñu sax ci corruption à supposer que sax les juges soient corrompus. Mhm. ñoom ils sont sept te dañuy voté xanaa kay bu ñu corrompé ñi ñee cinq yële kay xanaa ñoom rek mënoon nañu délibéré loolu mooy loolu mooy première chose deuxième chose bi maanaam dañu ne il faut nga nekk exclusivement français sur le code civil français ci boppam. Mhm. Hein? Moi, ne si tu es un français de de naissance manam nekul naturalisation mais si tu es un français de naissance. Mm-hmm. bo bëggee ñak sa nationalité bo bindé lool yëpp c'est pas important juste le jour bi nga xamné lañuy publier décret bi. Mm-hmm. ci ngay doog xamné kon ñak nga sa nationalité amul 6 mois amul dédé 6 mois c'était boudé da nga acquérir sa nationalité tu es nat tu as été naturalisé. Mm-hmm. mais un français de naissance c'est l'acte xaw 300 trois et quelques yooyu daal mais de mémoire tant qu'il n'y a pas le décret bi nga xam ne moom publié ci journal officiel xamal tu es toujours français. d'accord. léegi nag ñun suñu code constitutionnel moo ne booy déposer candidature bu ñuy beaucoup ba clôturer ce qui vient après le conseil du ko dossier bi ni ñu ko clôturé ne nañu c'est comme si ñoom dañoo tëju ci instant boobu Karim n'était pas français. Mm-hmm. donc juridiquement rek warul sax dugg ci ay corruption est-ce que dañ leen corrompre wala corrompre juridiquement rek dans tous les cas corrompre il ne pouvait pas être candidat. Mm-hmm. parce que France et puis c'est pas rétroactif. donc débat je pense que faut débat les est-ce qu'ils sont corrompus ou pas c'est un argument politique pour mon élection mm-hmm. mais juridiquement il pouvait pas être candidat euh, bon comme de ok. d'accord ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax euh, mu nekkoon euh, kaaw Sadio mu doon ñu woowee fële ca Paris le Sénégalais de Paris de France la ñu koy dàkkantale donc Ibrahima